jii nii nga mer jël benn bien public yàqu ko defaloo ko état bi wala keneen sa bopp nga ko defal ndax ça retarde beaucoup de choses te bu dul dara dafay nekk ay édifices yoo xam ne ay sénégalais ñoom ñooy xëy guddeeg bëccëg subaa ngoon di si liggéey donc loolu ñëw tey nga mer jël ko yàq ko ban njëriñ la lay amal pour man war nañu gën a conscience si loolu xam ne tey lépp lu ñu fi teg rek pour sénégalais yi ñoo ko moom et pour des générations. bi dañu pause rek ramadan bi incha allah dinañu ñëw indil sénégalais yi comme d'habitude <laughs> tooñ <laughs> c'est gentil jërëjëf merci